baacahu allahu taala bilhuda wa nuur li yuxrija annaasa min alzulumat ila nuur fa fataxa bihi quluuban gulfa wa aadaanan samma wa acyunan cumya fa ballaga alrisaala wa adda alamaana wa nasaxa alumma wa jahada fi llahi taala xaqa jihaadi xata ataahu alyaqiin fa allahuma salli wa sallim wa baarik wa ancim calayh wa ala alihi wa sahbihi wal muhtadiina bi hadyihi ila yawmi ddiin amma baad ixwata al aizza assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi dellu si nañ di leen nuyu nuyu lislaam mu di jàmmi yàlla ak yërmandeem yàlla na wàcc ci yéen wàcc ci mbooleem jullit ñu ngi ubbee suñu wax ci sant yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi koy kañ di ko bakk di ko màggal ci turam yu sell yi ak melokaanam yu mat yi dellu di sëlmal di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ñu dañ mukk di ko ñaanal xéewal ak mucc di ko ñaanal ay saxabaam di ko ñaanal waa këram di ko ñaanal képp ku jóg nekk ca la mu nekkoon ba bés penc di taxaw mbokk yi ma bokkal yàlla ñi ngi dellu si waat ci tomb bi ñu nekkoon ak yéen muy aalamul jinn di dëkkuwaayu jinne yi waxoon leen nag ne day tomb boo xam ne wax ci dafay doy waar lool ndax dafay aalam bu yéeme lool ba pare nag tumuranke dégg bi bariwul xaw yit raglu ma ne leen woon su fekkul woon yàlla tudd ko ci alquran ñu ci baree bari daañ la mën a weddi te buñ la weddi it doo am cislaay ci wax ji fan nga koy wéer jinne ni ko yàlla bindee bokk na ca lañu waxoon mooy dinañ leen wax nan la mel jëmm ji dinañ leen waxit day njabar moom jinne waaw waaye bu njabaree fan lay denc njabaram ak yan mbir mooy tax jinne njabar doomu aadama beneen bi ndax jinne dina dugg doom aadama su duggee doom aadama nan lay manifesté woo ci moom ba ñu xam ne kii jinne moom moo ko dugg incha allah mooy tomb waxtaan wi tey bu ñu bokkee yàlla ñu yëg ne yàlla bind na jinne may ko kattan mu am kattan lool sax waaye itam mu am xel jinne dafa am xel comme doomu aadama ni mu amee xel waaye it dafay dégg kom ni doom aadama di déggee waaye it mu attan ay liggéey yoo xam ne liggéey yu diis la doom aadama attanu ko naka noonu mu mën a yenu lu diis lool loo xamante ne day poser ay tonnes yu bari jinne yàlla may na ko kattanu mu mën koo yëkkati dem ak moom naka noonu yàlla may na ko moom jinne mu mën a gàttal yoon maanaa tey boo fi jóge woon war a dem Ndar wala nga dem France jinne yàlla may na ko mu mën a def loolu ci ay minit yu néew dooma weddi lu tax dooma weddi mooy da ngay delluwaat ci alquran nga fekk yàlla di wax naan qaala ifrit min jinni ana atika bihi qabla an taquuma min maqaamika wa inni alayhi la qawiyun amin da nga fekk yàlla di wax loolu ci alquran mooy ifrit ci jinne yi la bokk bokk na ci lim yi ma leen doon limal bi passé ifrit tudduma ko woon waaye bokk na ci euh, naka noonu sibyaan yooyu yëpp ci xeet lañ ci jinne yi incha allah daañ ci ñëw kon jinne yàlla may na ko mu mën a jël doomu aadama ci masafa boo xamante ne doon na yàgg lool mu defal ko ko ci minutes yu new comme ni ñu ko waxee ci alquran ne ifrit nee na woon man maa la koy andil lu jiitu ngay jóge fii nga taxaw te loolu it man mii ko wax ku ko mën laa kon jinne mën na loo xamante ne doomu aadama doomu aadama mënu ko bu ñu delloo ci xadis waxoon naa leen ne jinne moom la yàlla njëkk a bind nit kon jinne moo mag doom aadama ci kaw suuf loolu nag li ciy firnde mooy am daxaak an ibni abbas qaala kaana al jinn sukkaanu ard wal malaika sukkaanu sama wa hum ummaaruha loolu la ibnu abbas wax nee na malaaka yi ñoo woon asamaan ñoom la yàlla bindewu ñu dëkkoon asamaan mu bind jinne yi ñu dëkke suuf ñu di ko dundal ibnu abbas mu ne yi ni leen yàlla bindee ci asamaan ni asamaan si tegloo ñi nekk première asamaan seen jaamu yàlla lu ko double lu ko ëpp ñi nekk asamaanu ñaareel noonu la ñuy jaamoo yàlla ñi nekk asamaanu ñaareel lu ko ëpp lu ko double lu ko gën a bari ñi nekk asamaanu ñetteel noonu la ñuy jaamoo yàlla ba ci asamaanu juróom-ñaar kon yàlla am na ñu ko jaamu soo ko jaamoo sa bopp soo ko ñàkkee jaamu it sa bopp moo tax mu ne bu leen di tooñ seen bopp ndax yàlla day moom am na lu ko jaamu kon nag ñu bokk xam ne jinne moo mag doom aadama ci kaw suuf léegi nag nga ne ma ñaata at la jinne magee doom aadama ci kaw suuf ba tey dama lay delloo ci xadis muhammad ibn ishaq an habib an abi eh, anna iblis wa jundahu aqaamu fi ard qabla adam bi alfay sana ñaari junniy at ñaari junniy at la jinne magee doomu aadama ci kaw suuf moo tax keroog bi yàlla bindee aadam wo malaaka yi ne sujootal leen ko iblis nekk ci seen biir dafa ne duma ko sujootal ana xayrun minhu ana xayrun minhu xalaqtanii min naar wa xalaqtahu min tiin yaa ma bind ci safara bind ko ci ban ma mag ko fuuf xadis wax nañu ne li jinne magee doom aadama ci kaw suuf ñaari junniy at la yow mi may déglu jinne yàlla day mayoon na ko kattan ak mu mën a naaw dem ci asamaan di déglu sax xibaar ya fay am suñu wàccee daal di koy jox alkahanatu mooy ñi nga xamante ne ñooy njibarkat yi ak gisaanekat yi pettaawkat yi ñoom la jinne yi daan indil ay xabaar yi nga xamante ne mi ngi bawoo asamaan ci jamono yenent yàlla Suleymaan kon loo ciy déggee mooy jinne day naaw ndax ku mën a dem bay laal asamaan loolu naaw rek moo ko mën a def kon dina am xeet boo xam ne waxoon naa la ko ci xadis ba la ñu paase dañuy naaw waaye nag ginnaaw bi yàlla yónnee yenent yàlla muhammad ah ku fa dem nag yàlla yebal safara mu lakk la mu jige nag dematuñu waaye yooyu ñu fa jëlee woon yooyu ñu fa daan dégg di ko jox ñi nga xamante ne ñooy njabarkat yi ak gisaanekat yi ñu di ko wax nit ñi nit ñi di ko gis ba tax ñu gëmoon leen yaakaar ne ñoom ñooy buum ñooy bummi ñoom ñooy yàlla ci kaw suuf yooyu la Suleymaan jëloon yépp nag dajale ko suul ko ci gàngu naayam ba la ko Suleymaan suuloon waaye gis ngeen bi e, yeneenti yàlla Suleymaan génnee àddina ki doon bindal yeneenti yàlla Suleymaan mooy Asif moom moo doon bindal yeneenti yàlla Suleymaan bi yenent yàlla Suleymaan génnee àddina ci la jinne yi gaawantu sulliwaat kayit yooyu tasaare ko sulliwaat secret yooyu tasaare ko mooy tey tur yi ngeen di dégg mooy tur yi ngeen di dégg tur yooyu nga xamante ne ñu ngi ciy def lu baree baree bare bari donte nag yëpp dafay dugg rek ci sexr ci njabar doom aadama jinne dina koy dugg na am jinne dinay dugg doom aadama di wax ci làmmiñam di xoolee ay bëtam dooma wedd yenent bi nee na inna cheytaan yajri fi bni adam majra dami nee na cheytaane dafay daw ci biir doomu aadama ni deret ji di dawe loolu nag dina tax ñu taxaw leeral ay mbir yoo xamante ne léeg-léeg muy xew ñu jàpp ne jinne moo koy def fekk jinne defu ko léeg di nga gis koo xam ne dafa tëj gémmiñam maanaam mu ñëpp du mën a ubbi gémmiñam ndax dafa feebar ñu ne jinne moom moo ko jàpp naam am jinne dinay def loolu dina tëj gémmiñu ki feebar ba du mën a ŋaang waaye léeg-léegi dina ko ŋaangloo ba du nga mën a ñëpp waaye ni ko jinne di defee yow fajkat bi noonu la ko tension di defee nga bàyyi ko xel bu baax léeg-léeg nga naan jinnee ko jàpp fekk tension moo ko jàpp yóbbu ko ci ñu mën ñu faj ko moo gën nga téye ko foofu di ko tardel te doo ko faj naka noonu ni ko jinne di defee noonu la ko taas ki euh, nuñ koy waxati tatanos di defee nu jinne di defee loolu noonu la ko tatanos di defee tatanos dina jàpp nit mooy a asamum tooke dinay jàpp nit ba du mën a ubbi làmmiñam wax ñu naan ay jinne laak nangam ak nangam fekk du jinne kon yooyu am na nuñ ko mën a xamee yow mi nga xamante ne da nga yëngu ci côté bi soo ko bëggee xam ki nga xamante ne jinne moom moo ko ko def soo egsee ci moom jàppal ci baaraamam bu ndaw bi bu tànk bi jàpp ko nga bës ko bu baax soo ko bësee bu baax mel ni ku koy dompat bës ko bu baax da ngay gis ci saasa day jéem di ubbi gémmiñ ci kooku da ngay xam ne jinne moom moo ko ko def mais bu dee yeneen yi comme lii ma la wax muy tétanos wala tension yóbbu ko ci ñu ko mën xam ko ñoom ñu wutal ko ay garab ngir mu mën a wér waaye bu dee ki ko jinne def boo jàppee ci baaraamam boobu di ngay gis muy jéem di ubbi gémmiñam lu ko waral mooy jinne ni ko yàlla bindee su ne carax ci doom aadama dafay dëpp jinne dafay noyyee ci tànk bi nga xamante ni mooy baaraam bu ndaw bi foofu lay noyyee moo tax boo ko téewee bu baax nga bës ko da ngay gis muy jéem a réagir ci gémmiñ gi pour na gémmiñ gi ubbeeku kon loolu dolli nañ ko ci ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci wàllu faj jinne dina dugg doomu aadama ci xaalaat yi mooy ci bu egsee ci étape bi bi ci njëkk mooy su fekkee dafa feebar ba loof feebar ba ñàkk doole lool feebar ba lompoñ dangay gis gémmiñ gi sax dafay mel ne luy daw ci benn côté bi jamono boobu dina yomb lool jinne dugg doom aadama ci feebar boobu la naka noonu bu doom aadama demee ba egsi ci mer ba mënta contrôler boppam bët yi xonq coy muy lox jinne dina am possibilité pour dugg doomu aadama gaaw na ci lool naka noonu ki ragal ragal lool ba naw bi dem mooy sago dootul ànd ak sago jinne dina gaaw lool pour dugg ko naka noonu ki nga xamante ne dafa euh, saxwaani la maanaam dafa bëgg bànneex lool day fo saggan lool kooku it dina yomb lool jinne dugg ko kon yooyu dina yomb ci loo ci jinne mu dugg ci ci doomu aadama ci yooyu ñu leen wax léegi jinne nag bu duggee doom aadama bokk na ci ñu koy xamee mooy bu tëddee guddi di gént gént yu raglu imma ñu di ko dugal ci luy tàkk wala ñu di ko bëmax ci ay teen wala muy daanu ci ay montagne wala ñu di ko tiimale ay arme di ko dàq dina bokk ci yi nga xamante ne daf koy gis ci géntam lu bari naka noonu dafay gis deret lu bari waaye nag sabab yi tax mu dugg doomu aadama dinaa la ci limal lenn bi ci njëkk mooy jinne day bëgg doomu aadama comme ni ngay gisee xale bu jigéen bi nga bëgg ko xale bu jigéen bi ni muy gisee xale bu góor bi mu bëgg ko jinne ju jigéen noonu lay gisee góor mu bëgg ko ci doomu aadama topp ko waaye it jinne ju jigéen it noonu lay gisee góor ci doomu aadama mu topp ko ñoom ñaar ñëpp kon loolu sabab la ci jinne topp doomu aadama ñaareel bi mooy doomu aadama dinay tooñ jinne nu mu koy tooñee mooy mu yëkkati ndox mu tàng di ko tuur te waxul bismillah mu tuur ko ci kaw jinne dina tax jinné topp doomu aadama sonal ko lool ñaareel bi mooy doomu aadama jël lu mel ni xeer wala lu muy toxal di ko sànni bi koy sànni waxul bismillah mu sànni ko mu dal ci jinne xam ngeen jinne yi ñuy gis te ñun duñ leen gis moo tax saa bu ñuy dox ñun ñoom dañ naan moytu leen silmaxa yaa ngi ñëw di xëcc seeni doom ñoom jinne yi kon booy sànni waxal bismillah booy tuur ndox mu tàng ci suuf waxal bismillah bu fekkee yaa ngi koy xëpp waxal bismillah ndax yooyee dina tax nga tooñ jinne jinne topp la sonal la lool baru du tàqalikoo ak yow beneen bi mooy dina topp doomu aadama ci doom aadama woo ko ci ay tur maanaam ñu jox ko ay tur yoo xamante ne day da nga koy woo mu daal di ñëw waxoo ko loo xamante ni <laughs> satisfaire na ko mu topp la sonal la lool yëpp ay sabab la ci jinne topp doomu aadama kon nag mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku yàlla bind rek am nga jinne képp ku yàlla bind am nga jinne keroog bi ko waxee sax Aïcha radiyallahu anha dafa ne ko <laughs> ba ci yow sax yow yonent bi ba ci sax am nga jinne mu ne wallahi am naa jinne waaye yàlla moo ma dimbale ci moom ba tuub na du ma digal lu muy lu baax kon nag yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi yëg benn mbir mooy bu ngeen tëddee guddi da ngeen di gént lu bari rawatina ñi nga xamante ni dañuy gént di sëy di sëy léeg-léeg sax gént gi jeex du tee yaa ngi yëg bànneex du tee ndox mi mi ngi génn léeg-léeg nga gis koo xam ne ci benn guddi dina ci gént ñetti yoon ba ñeenti yoon di ci sëy te lépp dafay génne ndox loolu dina indi doxful jinsi balaa muy am soxna nga xamante ne bu amee soxna du ci mën dara jinne dina koy def ngeen bàyyi ko xel bu baax léegi nag ñaan bi nga xamante ne soo ko ñaanee yow moomu nga xamante ne jinne da laa sonal jinne ji daal di lay bàyyi daw Ababakar radiyallahu an moom moo ko laajoon yenent bi alayhi salaatu wasalaam lan la ko laaj dafa ne ko ya rasulallah allimni kalimat aquluhunna ida asbaxtu wa am saytu mu ne ko yow mi yàlla yónni wax ma ay baat yoo xamante ne dama koy wax dama koy ñaane dama koy léemoo suma ma ak suma gonto lan la ko yenent bi jox ñaan gaa ngi noonu de yenent bi lépp lu mu jàngale dafa am solo wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa te li ko yàlla yónnee mooy yërmande ci xeet bi dafa ñëw ngir sëfeñu ngir yóbbuñu àjjana ñaan bii day la ko yenente bi jox ne ko qul yow Abubakar waxal allahumma fatiri alsamawati wal ard aalimi alxayb walsahaada rabbi kulli sheyin wa maliki ashhadu an laa ilaha illa ant audu bika min charri nafsi wa charri sheytan wa shirki qaala qulha ida asbaxt wa ida amsayt wa ida aqasta mattiak lii de la dénkoon Ababakar bi Abubakar ne jox ma ay baat yoo xamante ne dama koy def muy sama léemaay ma mën a mucc yent bi baat yi la ko joxoon dénk naa la ko dénk naa ko képp kuy jullit yent bi day dénkoon naka Ababakar ne ko waxal baat yi soo xëyee yow Ababakar wax ko waaye wax ko soo demee di tëdd ci sa lal kon yow moom nga xam ni gént boobu daf lay sonal lool mooy gént di sëy lu bari léeg-léeg mu indi la sax jëmm joo xamante ni da nga kaa rus lool mais du tee di nga sëy ak moom ci gént gi jëlal ñaan gaa gi noonu incha allah soo ko defee yàlla musal la ci léegi nag ki nga xamante ni bëgg naa xam ndax jinne moo nekk ci moom su tëddee guddi day bokk na ci alaamaat yam koy xamee mooy dafay gént gént yu raglu dafay gént di gis ay ay ay rab ñu di ko dàq di ko bëgg a lekk naka noonu dafay tegale ay bëñam maanaam bu tëddee guddi day matt ay bëñam ba yow mi ko bi dend ak moom da ngay dégg ni bëñee di def kakakakakak mu mel ni ku di ko yey kooku mandarga la ci jinne mi ngi ci moom beneen bi mooy ki nga xamante ne dafay tëdd guddi di nelaw waaye yaa ngi ko dégg mi ngi ree ci biir nelaw yi mi ngi jooy ba ngay dégg baatam ci biir nelaw yi wala mu ngi yuuxu ba ngay dégg baatam bokk na ci màndarga yi wane ne kii kat jinne laal na ko naka noonu ki jinne laal bokk na ci màndarga ya koy wane su nekkee ci ay nelaw mën nga kaa yee ba mu jóg taxaw mais du tee day dox day dox di dem ma ngay dox de waaye ma ngi nelaw loolu it ci màndarga yi la naka noonu ki nga xamante ne bu tëddee guddi dafay faral di waxtu li mu yendoo ba bi yépp mën na koy wax kon léegi nag yii yëpp nag bu dajee mooy wane ne kii jinne mi ngi ci moom lan moo ñuy musal ci jinne joxoon naa la ko joxoon naa la ayatul kursi joxoon naa la audu bi kalimatillahi tammat ayatul nee naa la abu hurayra radiallahu an bi mu ko laajee yent bi ne ko waa ji day bi ma ko jàppaatee lii la mo wax dafa ne ko wax na dëgg ayatul kursi soo ko waxee ci suba si mucc nga ci jinne soo ko waxee ci ngoon gi mucc nga ci jinne kon ayatul kursi mi ngi noonu audu bi kalimatillahi tammati allati mi ngi noonu waaye allahumma fatiri samawati wal ard alimi al gayb wa shahadati mi ngi noonu kenn ku ci nekk ci ñi nga xamante ne yàlla nattu na leen ñu am feebar boobu nga xamante ne mooy feebaru jinne topp na leen sonal na leen nañu jël ñaan yooyu inchaa allahu rabbi léegi nag waxoon naa la ndax jinne dina njabar bu njabaree fan la koy def waxoon naa la nan la jinne di mel toppuñu ba tey ci jotaay yi ñëw inchaa allahu rabbi dañ la ci indil ay leeral wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi